bokki jullit yi yàlla dafa wax ni wama naqamu minhum illa an yuminu billahi alaziz alxamid alladi lahu mulku alsamawati wal ard wallahu ala kulli cheyin shahid yàlla mu ni jullit ñooñee ñu mbugal kenn mbugalu leen ci dañoo wax lu ñu warut wax wala dañoo def lu ñu warut a def wala dañ leen sant lu ñu bañ waaye dañ leen a mbugal parce que dañoo gëm yàlla subhaanahu wa ta'ala yàlla mi nga xam ni moo am kàttan moo am sañ-sañ moo man lépp yàlla mi nga xam ni moom lañu war a sant ci suñuy wax ak ci suñuy jëf kon kenn mbugalul ñooña ci njombe gu ñu def wala kirim bu ñu def waaye dañoo gëm rekk yàlla seen boroom mi leen digal ñu gëm ko loolu laa wax ni mi ngi am ba suñ jonn yàllay tey ba sunu jonn yàllay tey dafa dañoo àgg ba ci sunu am réew léegi wax fi dëgg muy alquraanul karim wax fi sunna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yam ci yaar yooyu bu yàggee dangay doon defkatu kirim ñoom loolu lañ lay jàppe ci sunum réew dégg naa fi ay kàddu benn waay bu wax ni diw moo bind ci ay téereem ni yàlla dafa jël jëmmam jaxase ko ak sama jëmma te li ma gëm sax mooy diw moom wax waxu ko li ma gëm mooy diw mooma waxu ko waaye nee na diw moo wax ni yàlla jël jëmmam jaxase ko jëmmi boppam moom soo laalee diw mooma yàlla nga laal soo laalee yàlla diw mooma nga laal kon diw mi boo gisee ñu koy wax yàlla looloo tax allahu akbar ki ko wax ci ab télé la ko wax ci réseau sociaux àdduna senegal ñépp di ko dégg fam ko doon waxee am ay eskey ay daanoo te kenn ku taxaw bëgg koo weddi ñu ne la def nga crime mbokki jullit yi la amoon démb mi ngi am ba tey dañuy jël cërub yàlla subhaanahu wa taala jox ko keneen dañuy jël cërub yàlla jox ko mbindéef ñëpp di dégg ñëpp di fekke ñëpp naan eskey yow nga bëgg a jël cër bi nangu ko delloo ko sunu boroom ñu ne la yow def nga kirim wax nga musiba maandul noppil ci fi jàmbur sa yoon nekkut ci déedéet mbokkum jullit sunu yoon mi ci ndax Allahu la ñuy waxal sunu yoon mi ngi ci ndax Allahu la ñuy waxal képp ku jël cërub yàlla jox ko mbindéef luñ man ci kàddu amuñ kàttan amuñ doole mënuñu xeex mënuñ dóor te yàlla digaluñu ko sax waaye wax lañ ñu digal kon danañ wax lu ñu mën ngir jëlaat cër bi delloo ko sunu borom lu nu ci fekk fekk ñu ca donte dañu ci rey dañu ci xas dañu ci saaga dañu ci tuumaal lu mën a xew lu nekk danañ géem a jëlaat cër bi delloo ko yàlla ndax cër bi yàlla ko moom mbokkum jullit wallahi alazim yàlla du moroom mbokk yi yàlla du moroom ci réew mi ngay taxaw ci tele ñëpp di la seetaan nga jël cëru yàlla jox ko nit ba ñëpp yëg ni jox nga ko nit ñu di cell yow nga ñëw pour défendre Allah ñu ne la def nga crime mbokki jullite ci miim réew laa déggaat encore ku ni yàlla dafa xaaj àdduna bi ñaari xaaj benn xaaj bi mu jox ko diw beneen xaaj bi yàlla féetewoo ko yàlla wax diw mooma ni ko sama xaaj loo ci soxla jëlal te ma tàggu yow nag sab xaaj lu ma ci soxla man yàlla bala maa jël dama lay tàggu nit wax na ko fii ñépp di dégg fam ko doon waxee nit ay nit di daanu naan eskay kenn weddiwu ko te ku taxaw bëgg ko weddi buñ la mënee duma daañ la duma buñ la mënee dóor dóor la buñ la mënee saaga saaga la yow daal kenn nanguwut ku jox cër bi yàlla te ku nangu cër bi cërub yàlla ku ko jël jox ko nit ñu ne la eskay nga bëgg ko nangu delloo ko yàlla ñu ne la mukk du fi amee maandool lu tax ñuy maandu ci yàlla yàlla ñun ñëpp ko bokk mooy sunu borom moo nu bind ñuy ay jaamam kenn nanguwut wut ku jël cëru baayam jox ko baayu jàmbur dama ni kenn nangu wut jël cëru baayam jox ko baayu jàmbur kenn nanguwu ko kenn nanguwul ku jël cëru yaayam cëru magam jox ko jàmbur bi lu tax ñuy nangu di jël cërub Allah di ko jox keneen mbokki jullit yi mbokk yi yàlla du moroom yàlla du moroom yàlla boroom la yàlla buur la mbokki jullit yi wallahi alazim ña daan mbugal saxaaba ya démb ca lan ca dañoo gëmoon yàlla ba tey am na ñu taxaw ku wax yàlla ak yonentam yam ca ku wax dëgg ñu bëgg laa ni kirim nga def wax nga erreur màndu mbokki jullit yi nañu leen delloo siwaat pas-pas yi gëm ni benn buur lañu am muy yàlla benn yàlla lañu am benn kilifa lañu am muy allahu subhanahu wa ta'ala te wallahi sama kàddu yi day dévié wu ma kenn ngir ngir lan bul dégg diw bul topp di waxuma ko gis nga fii àdduna bi ku fi baax daañu la déglu daañu la déggal li féeg yaa ngi waxal yàlla ak yonentam ku fi jub daañu la dégg daañu la topp li féeg yaa ngi topp yàlla ak rasulullah waaye ku fi dëngal dañu la fay bàyyi topp yàlla ak yonentam te ku fi wax lu juunook waxi yàlla ak yonentam danañu ko wedd ci alquraanul karim ak sunna donte dañuy ñàkk sunu bakkan ñàkk sunu bakkan ci wax dëgg moo nu gënal seetaan dëgg ba dee maanaam seetaan ay neen ba dee mbokki jullit nañu leen delloo siwaat sunu xel benn kilifa wax na bu ñuy wax rafaa yi faraluma sax di indi léegoo-leeg exemple ci ay doomu aadama lu dul yàlla ak yonentam waaye rafaa yi dafa wax ni nit ki su tëddoon ba guddi benn bëñam di metti li mu njëkk a fàtte mooy kam gëmoon kam gëmoon ni yàlla la kooku lay njëkk a fàtte li xelam di njëkk dem mooy benn doom bu muy naan pour mu seddal bañ bi mbokk yi nañu leen bàyyiwaat xel bu baax ci la ñuy wax ak di ko dégg ñu baree bare ci ñuy toog ci télé yi di wax ak réseaux sociaux yi dañuy wax ay caaxaan képp ak lu neex nit ñi ak bëgg lu ñu am nit ki looy am lu nekk am ko ci ndam am ko ci dëggu looy wax aussi wax ko ci dëgg looy am mu lew la domm fexeel ba am ngërëmal sunu borom ci wax dëgg ak ci jëfe dëgg waaye toog di ndax doomu aadama yi ngir wut place ngir wut loo am ngir wut noo mel ak fu ñu la teg nekk ci la la neex ci rek ba yowmal qiyaamati mbokkum jullit yàlla nee na yàlla mooy ki nga xam ni ne alladi lahu mulku samaawaati wal ard wallahu ala kulli cheyin shahid yàlla moom nguurug asamaan moom nguurug suuf yàlla moom nguurug asamaan moom nguurug suuf fii adduna kenn amut fi dara lu dul la nga tabax la nga jëndal sa bopp bindee fi yàlla lañ jaam yi jaami yàlla lañ comme amoo ci àdduna dara lu dul sëb néeg sëb sa place bi ngay tëdd rek nga am boo faatoo ñu dem gasal la benn kàmb gu ndaw suul la fa mu jeex ki mel nii lu mu am yowmal qiyaam ku mel nii lu mu am yowmal qiyaam mbokk yi ku mel nii lan la am yowmal qiyaam ñun ñëpp benn lañ ci yàlla in kullu mën fi samaawaati wal ardi illa aati rahmaani abda yàlla mu ne amul kenn kuy dund ci kaw asamaan mbaa ci suuf lu dul yowmal qiyaam da ngay ñëw doon jaamub allah doon jaamub yàlla in kullu man fi samawati wal ard illa aati arrahmani abda ñëpp ay jaamu yàlla lañ sëriñ Tuuba Mbàkke jaamub yàlla la loolu la gëm loolu la jàngale ci téeram yépp nag ku weddi li may wax demal jàngi masaalikul jinaan ku weddi li may wax demal gëstu téere yi sëñ Tuuba yi yàlla la gëm wéetal yàlla di ko jàngale alxaaji Malick yàlla la gëm di ko jàngale di ko wéetal ak ñeneen ña ca des ñëpp mais ay nit ñëw nag bëgg wax nit ñi ni déedéet ñii doon jaamu yàlla di sëñ Tuubaa ak alxaaji Malick ja doonuñu woon ay jaamu yàlla mais ay yàlla lañ buleen tooñ bu leen tooñ mbokki jullit yi bu leen tooñ sëriñ Tuubaa mësta wax ni jàpp leen ma bàyyi yàlla waaye mbokki jullit di sëñ Tuubaa mi nga xam ni dafa bàyyi lépp bàyyi darajaam bàyyi sañ-sañam bàyyi lépp ni man ci ñi gëm yonent bi maa ci gën a néew doole man maay mbindaanu rasulullah ay waay jëlee mbokk yi sëñ Tuubaa moo ni yonent bi dey man maay bindaanam def leen ma bindaanu yonent bi di leen ma wooye xaadimu rasuul ngir lan may jaamu yàlla di liggéeyal rasulullah kon lu tax ñu ñëw nag bëgg ne ko déedéet doom mbindaanam waaye nag kilifaam nga sëñ Tuubaa waxut loolu waxut loolu kazaalika ña ca des ñëpp kenn waxut loolu kon nañ leen doon ay donga gëm yàlla gëm rasulullah képp ku baax dëggu ñu ànd ak yow li fekk yaa ngi dëggu di wax yàlla ak yonentam ku bàyyi yàlla bàyyi yonentam nu bàyyi la jàpp yàlla jàpp rasulullah bokk yi yàlla na nu yàlla defal tawfiq yàlla na nu yàlla saxal ci siraatal mustaqim defal nu jàmm àdduna ak alaaxira defal ko mboolem jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.